alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaa'ina raxmatika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 di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi naka noonu di nuyu ilimaan yi ak mboolem ñi nga xam ne waxtu wi ñi ngi wétlanteeg ñun jotaay bi ñenn ñi nekk seen yoonu liggéeyukaay yal na yàlla defal leen barke ñenn ñi xëy jëm ca euh, rendez-vous yañ joxe moo xam ñu jëm ca kër docteur la yal na yàlla defal leen saafara moo xam ñu xëy di déposi ji la wala ñu xëy jëm ci entretien yi wala ñi xëy di waajal xale yi ñu war a yóbbu ñu jàngi borom bi subhaanahu wa taala noonu la moo àdduna waaye ku yeewu rek santal ndax am na ñoo tërandoo ñoo tëddaloo wala ñoo tëddandooloon te yeewuwuñ noonu la mooña àdduna alhamdulillahi rabbil alamin moo tax boo yewoo ci nelaw sax lool ngay wax alhamdulillahi alladi axyaana dama amaatana wa ilayhi nusuur maa ngi sant borom bi nga xam ne moo ma nelawaloon te baat bi ngay jëfe jëfandikoo foofu mooy moo ma rayoon ndax nelaw daan roog dee ku xas bay nelaw fi mu ne li nga amoon lépp fàtte nga ko li nga moomoon lépp fàtte ko fàttali kootoo dara ba keroog nga waat door a xoolaat sa montre bi xëccaat sa téléphone bi euh, xoolaat sa caabi yi euh, daal di tàmbaliwaat àdduna tàmbali dox ak yow ba muy soob borom bi subhaanahu wa taala nit ki nelaw te du yewwooti te nelaw ci xéewal yàlla yi la bokk bala koo xam nga yëg ne euh, li ngay yendoo mu nekk ci tam xel yi sa xel mi yendoo togg xalaat yeeg euh, benke ñenke yeeg jafe-jafe yeeg stress yi bu nit ki demee ba tëdd di nelaw fàtte yépp nooflaay gi yuuram gi di noppalu euh, yaramam wi noppalu ko di organam yi mu nekk ci moom xéewal goo xamante ne lu dul loolu euh, mënu ko woon a amee foofu moo tax loo mën a ñàkk yàllaa ngi la may wér goo xam ne yaa ngi tëdd di nelaw bu fekkonte ne ni ngay jotee facture ndox di ko jote facture courant ak téléphone wala location bu dee yow mi loué yal na yàlla sàmmul ñun locataires yi ak ñi ami kër te loué ñu ko yal na yàlla sàmmu leen bu doon ni ngay jotee euh, fay yooyu noonu ngay jotee facture nelaw facture nelaw nelaw yi ngay nelaw nga war koo fay facture oxygène bi gis nga bi mu fi manqué rek jamono jële nga xamante ne dañoo bari ñu ko soxla te ay appareil war leen koo jox dégg ci coow lu ne ñun nag bañ gënee àdduna ba nëga ni borom bi subhaanahu wa taala mi ñu koy jox ak ñi ñu fi indi woon te loolu jotuñ ci benn facture li ci yàlla bëgg daal moo ñu sant ko rek moo ñu yëg ne xéewal googu mu ñu defal moo ñu ko defal buñ ko yëgee rek moom mu ne ñu seen jaan wàcc na xanaa loolu yomb na moo tax bu ñu sàgganee ba yëgaluñ ko ko ne ko yaa ñu ko defal mu tudde ñu ñi nga xam ne ñu goree di lañ ñu goree di lañ alhamdulilahi rabbil alamin moo tax léeg nit a ngi jàmbat te fekk yàlla noppi na ak moom bu xooloon yi war a daje ci moom yépp daje na ci moom te loolu moo wér ndax am na loo xam ne bu la ko yàlla xasee ba defal loo ñàkkati rek mu ngi aju fi fi ci sa yitteyam waaye sa góorgóorlu may na la nga am ko waaye léeg nit ki du yëg ne eh, daa war a góorgóorlu ngir jot ci loolu nit ki du yëg daa war a góorgóorlu ngir jot ci loolu ndax li nga war a am lépp mi ngi la wër borom bi moom ci coobareem ak i sañ-sañam jegeel na la ko ba doo yootu ngir jot ci waaye nag ndax danga def nag benn effort ngir jot ci boo toogee di ko jiiñ am na loo xam ne moom du ko ci fekk ndax jomb na ko jomb na ko tàyyal na loolu kilifa ak àdduna sax dañ ko naan doo seere yenn détails yi am na yu bare bari yoo xamante ne mën na ko fee romb jàll waaye yu mag yee mag moo koy yitteel waaye kenn ku nekk nag lañ jàppandil ba mu agsi ci yow da ngay góorgóorlu ba la nga ca war a am lépp nga am ko ca loolu mooy taxawaayu ku amum xel euh, tey jëfandikoo li nga xam ne mooy am xelam moo tax di xam li nga am te di ko xool baax na lool ndax dana la dimbali ci nga mën a sant yàlla dana la dimbali ci nga mën a sant yàlla maa ngi koy wax sama euh, benn jarbaat ne ko léeg-léeg nit di daw di sonn ci loo xam ne aw des la ci moom maanaam ginnaaw bi nga amee am mbubb mu muur sa yaram wi te doon mbubbum tànniif mi nga sopp nga sol ko ami dàll sol ko bu dee góor la lim soxla ci col rek laa bëgg a wax mu am lépp bu dee jigéen lim soxla ci col mu am lépp xam nga mënoo tegale juróomi mbubb wala juróom benn mbubb mel na nga mën a sol euh, léeg-léeg yu baree baree bari ci yi nga soxla am nga ko ba noppi fi ne li ngay wutaat nii ak di ci sonn aw des la wooy denc des wi nag góor góorlu ba am ko baax na ndax loolu ci ak nit la bokk waaye xarab ki la jox li nga jot a am ba mën a wuti aw des ba jàpp ne amoo dara ñàkk xam li nga am la ndax boo ko amee da ngay jël loolu muy sa départ nga daal di raam nag ngir wuti leneen bu ko defee lu ñëwati rek day tegu ci balance ngëm yàlla gee cant gi waaye dafiy fekk ak doylu doylu gi nga xam ne mooy alal ndax lu du doylu rek du alal doylu ji nga xamante ne du jeex mukk ndax doomu aadama du am lu ko doy waaye nag mën naa am lum doy loo mhm. nit moom lu ko doy mën na koo bañ a am ndax dalay doy ba ëpp la waaye nag ngay xëy di wutiwaat ndax noonu la yàlla mooña doomu aadama doñ doñ doñ doñ rek waaw doñ doñ doñ doñ doñ rek noonu la yàlla mooña doomu aadama noonu la ñu mooñe noonu la ñu mooñe waaye nag nit ki dana doylu ba nga xam ne eh, kër këram jooju ak jaamu yàlla lay doon ci moom effort la bu muy def ndax noonu la yàlla binde doomu aadama ndax bëggul ku xëy toog fi mu ne yéen ñi xëy di liggéeyi seen xëy mi neex na yàlla lool teel a yeewu gi jóg la yaram wi du yeewu noonu ngay fudd euh, laal ndox solu foo jëm damay xëy damay xëy borom bi bëgg ci yow ndax looloo tax mu indi ñu ci kaw suuf mooy ngir ñu dundal suuf si ngir ñuy xëy ngir ñuy xëy léeg sax ñu dugal la ci euh, dégginu diine woo xam ne dalay tax a sàggane sa liggéey bi nga xam ne waxtu wii nga war a waaj dem xëy boo moytuwul nga yoru kurus naan oustaz euh, ban dog laa war a wérd am na ndaw fu muy toll ci wàllu liggéey jox ma jox ma dogu wérd bu may taxa am wërsëg doyut waa la doy dëgg-dëgg mooy luñ la man di jox na nga ko booleeg nag bu xëy jotee nga xëy waaw bu xëy jotee nga xëy te respecté sa xëy mi respecté ko respecté ko ku ci toll moom taxawee ko na nga ko war a taxawee doo nga la war mooy tax nga am nga am lu sage moo tax nga am lu sàgge mooy tax nga mën a sagal sa bopp mooy tax nga mën a sagal sam réew mooy tax nga mën a sagal sa njaboot te bala koo xam nag nga góor góorlu ba am lu faj say soxla ci sa liggéey te lew la doom dangay am personnalité lool waaye koo xam ne dangaa bëgg di lijjanti boo moytu da ngay ñàkk personnalité waaw lijjantee ki tappale moom effort bi ci nit di daj dajoon ko ci effortu liggéey ci anam gi mu war a liggéeyee moo gën ndax dalay yokk dignité moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ko ca nam ko jàngalee te loola mooy njàngalin mu wér ma ak mbaax lu am solo la moom laa doon waxtaane borom bi nee na ñi baax ñi ñoo nga ca aljanna ya nee na ñu ñu ñi ne ci safaanu baax nag ñoom ña nga ca e, kër yu naqar ya muy sawara yal nañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy al abraar te mooy ñu baax ñi al abraar moom la yàlla ne innal abraara dafa am ñoo xam ne moom e, ñaari xaaj yi àdduna xaaju muy baax ak bon ñoom baax lañ féete woo baax lañ féete woo bu ñu woo nit tur wa gën a baax lañ koy wooye bu ñu jëflanteeg nit la gën a baax ca lañ am moom la ñuy génnee di ko jëflanteek moom léeg ma di ci xalaat lu yàgg yàgg yàgg yàgg léeg-léeg sax ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu wax man ngay def ay chronique wala ngay def ay analyse la nga ne sëq jenn waay boo xalaatee bis bu ñu la nee sëq ni muy mel ci yow day am nooy waxee ci moom da ngay tàmbulee ndànkal nag xaw a yërëm jaami yàlla yi loolu mooy ak mbaax baax ci ay wax baax ci ay jëf ñu baax ñi noonu lañ meloon ba mujj tudd nag ña nga xamante ne ñoo baax borom bi ne ñu baax ñooñee muy al muy te mooy ñi nga xam ne ndànk la ñuy wax ñi nga xam ne bu dee col lu baax la ñuy sol bu dee lekk la baax te teey la ñuy lekk bu dee jëf jëf ju baax ji ca la ñu nekk bu dee àndandoo àndandoo yu baax la ñuy àndal maanaam lenn lu ne la baax la ca la ñu nekk ba mujj doon ñu baax ñooñu la fii naim ña nga ci xéewal ya waaw foofu na xéewal rek la ko yàlla tuddee mooy ku baax baax a le waaw baax a noppale bu la baax téyee nag ànd la ku baax fi mu ne noo bëgg a mel rek boo gisee ku ni mel tàmbali la ànd ak moom moo tax danga tànn sa àndandoo yi nag na nga tànn ñi ngay àndal bu baax a baax a baax a baax bul def ku jóg rek nga ne ko maag yow a parce que di ànd ak ñu baaxut ba noppi bëgg a baax lu jafee-jafe lay doon di ànd ak ñu baaxut def leen ni àndandoo muy say wéttal ñuy say xariti benn bakkan ngeen bokk benn programme di ko waxtaanee ba noppi nga ne man nag bëggumaa mel ne ñoom loolu lu jafee jafee jafe la waaw léegi nag euh, jëflante koo xamante ne am na jikko yu baaxut yow bu fekkee góor góorlu nga ba defaru aw yiwa ca nekk ndax mooy tax nit ki mën a xëcc nit ba mu ñëw te bul xool nit mukk jàppe ko ci ñu baaxut ñi ndax loolu day tee baax moo tax mbaax jafe na fi mu ne ki baax nit ñee koy séen di ko wax ne kii kat waaju baax la waaye moom day yaakaar ne ñi ko naan dangaa baax ñoo ko gën day yaakaar ne ñi ko naan dangaa baax ñoo ko gën nga xam ne eh, ab soññee la koy def ci moom ab soññee la koy def ci moom borom bi nee na ñu baax ñi ñoom day ña nga ca liyin waaw ñu bon ñi ña nga ca safaan ba yal na ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñoo baax di xeeñtu ak mbaax te nangul ñu baax ñi seenu mbaax ndax looloot ak mbaax la waaw góorgóorlu ba nangul ñu baax ñi seenu mbaax loolu ak mbaax la aaya yu baree bari ñëw na di waxtaane bunt boobu nga xamante ne mooy ak mbaax waaye yi ma ci indi man nañ koo doyloo te ñëw ci eh, waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy ay ahadis yoo xamante ne day waxtaane ci mbaax ak yi nga xam ne moo aju ci mbaax hadis boo xam ne baraa ibnu azib radiallahu anhuma moo ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, digal nañu juróom-ñaar tere ñu juróom-ñaar sallallahu alayhi wa ci li nga xam ne day tax a baax da daan digal nit loo xam ne bu ko defee baax waaye tere ko loo xamante ne eh, bu ko bàyyee moom it baax rek waaw bu ko bàyyee baax waaye bu ko jëfee mu nekk ci moom safaanum baax eh, tere ko loo xam ne bu ko bàyyee baax digal ko loo xam ne bu ko defee baax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal nañu bi sab in euh, walla bi sab in wa nahaana an sab in digal nañu juróom-ñaar yu baax tere nañu juróom-ñaar lam ñu digal la ci jiitu mooy amarana bi iyaadatil maridi yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal nañu ñuy seeti ku feebar ndeke dem seeti ku feebar ci mbaax la bokk ci mbaax la bokk léeg-léeg nga sol saw dàll dem hôpital bu dee avant corona xawma léegi dana jàpp ndem déet ñoom docteur Ana ci xam dara waaye nga sol saw dàll yëg ne sa mbokk daa feebar ma nga ca hôpital sàngam wala ci ma nga ca clinique sàngam mu ne ci ay jafe-jafe xëy ñu sampal ko ay butéel mu jekki-jekki gis la nga ne dareet sol sa mbubb ñëw ne ko dama laa seet si woon ndeysaan lu rëy la loolu te rafet ci ay diggante wala nga ñëw këram ci waxtu woo xamante ne doo déranger te doo indiwaale yuy déranger doo fa toog toogaay buy déranger ñëw ne ko dama laa seet si woon waxoon naa teggii ni kuy seeti ku feebar ca àqi dëkkandoo ya waaw kuy seeti ku feebar rik bul toog ci wetam di jëw xam nga ñun dañoo mën a jëw fu ñu toog nañ ma baal fu ñu toog juróomi minute rek tàmbalee waxtaane ci ka fa nekkut te nag ku toll ci tawat ba tëdd nag nga seet si ko boo ñëwee war ngeen a waxtaane leneen war ngeen a waxtaan leen waxtaanu muñ loo ko waxtaanu sant loo ko yàlla waxtaanu dalal xelam dalal xelam waaw muñal ah yow de ku baax nga xam naa bu fekkoonte ne baax dong ngay tax tawat du dal nit de moom lii mën nga cee mucc waaw tàmbulee dalal xelam doo ca yem sax waaye nga ne ko lii de moom nattu la rek ndax ku yàlla fàttewut lay teg ay tawat boo amee ay xissa ci loolu nga nettali ko boo ci amee nga nettali ko ci sa yi waaw mag mu baax de Eh, ba mu toogee ay fani fan dara dalu ko daa woo xale ya neexal leen jàngalu alxuraan tiit ci boroomam ne xanaa yàlla damaa fàtte ab diira ngi nii dal dara dalu ma waaw ca suba sa rek dara dal ko mu sant boroomam subhaanahu wa taala ci fàttaliku gi ko fàttaliku ba teg ko ay metit waaw kay nga xam ne nit ki day yëg ne kon li ma dal nii ndekete yëgguma yàlla yëg moo tax mu dal ma mën naa am bàkkaar laa def boo xam ne moom lay effacé ci man wala sax mu nekk yëkkatiku daraja ci man ab jullit noonu lay jàngate ko dal boo ñëwee dimbali ko ci loolu yow mi koy seet si bul yem ci loolu waaye na nga ko ñaanal waxoon naa ko tuxuurun insha allah lu gàtt la te loolu mooy da nga wér insha allah koo seet rek jàppal ne moom dana wér ne ko da nga wér de yow de da nga jógaat dellu ci say soxla say soxla bu soobee yàlla waaw bañ faa def safaan ba nag ni ko Oustaz Alioune Sall waxe woon te conférence ba ñëw seet si feebar ne ko sa feebar bi dafa xew sa feebar bi daa xew càll de rey na fa juróom-ñaar <laughs> na ma waa càlle bal noonu ko oustaz di waxe xam nga kooku moom bu faatoo yaa ko rey waaw wala ñëw seet ko feebar ba noppi di fa waxtaane ñu faatu xëy na waxu ko sa feebar bi daa xew waaye yaa ngi naan de eh, man de léegi faatu bi ni mu baree jaaxal na ma lii dalee daal kenn xamul lu mu doon démb rek lañ ma tàggee diw man de ci dëj laa jógee loolu bëgg waxtaan la te xamoo li nga war a wax moo tax it daa bokk ci ak mbaax barab bu ne nga xam li nga fa war a wax am na xam ne xamuñu waxtaan xamuñu lu ñu war a waxtaanee waaw xamuñu heure waxtaan xamuñu yenn yi ñu war a waxtaanee yenn audio yi sax boo koy envoyé nit war ngaa xool heure bi ci fan la ko war a fekk ci nan la koy fekkee lu ko mooy ci mer ngay dëkk de sa da koo déglu tontuwuma rek da koo déglu parce que bu la tontoo ba am ndax fi nga génn baaxut yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom-ñaar yooyu ba ca jiitu dattil iyaadatil di seeti ku feebar bu ñaareel bi wattibaail janaazati mooy di gunge am néew maanaam di ànd ci rob di ànd ci rob waxoon naa yu wuree wi ci nekk yu wuree ree ci nekk ci gunge ab néew gunge am néew daa bokk ci teggini lislaam bo bu nit faatoo ay mbokki jullitam gunge ko ànd yóbbu ko ba ci këram gu mujj jébbal ko boromam ànd yóbbu ko ba ci këram gu mujj jébbal ko boroomam waaw bu bu ñu léegi nag dañuy waxtaan gungeem néew yet eh, seetlu naa ci waxtaan ñu ànd dugg ci armeel yi waaye ñaar ñaar kenn ku ne di déy sa moroom ngeen di ngeen di xuumtoo di dem léeg ngeen di waxtaan ci néew ya fa tëdd léeg-léeg ngeen di waxtaane ci ki faatu léeg ngeen di waxtaane ci mbokkam yi ñëw jëru ko nag loolu moom bokkut ci teggin yi teggin yi daal kuy dugg ci armeel da ngay nuyu waa armeel yi nañ ko jàng nag ndax jekki naan xawuma ko ak nuñ koy defee li nga bëgg a xam ci àdduna tam amal la njariñ lépp jàng nga ko lii may wax it tam doon sa jaamu yàllaat boo defee yitte jàng ko man am na ci yoo xam ne dafa yomb waaw dafa yomb ah nañ ma baal nag waaye am na ci yoo xam dafa yomb lool yow daal li nga bëgg a réglé woo say problème lépp xam nga ko ba mu réglé wu waaye yeneen di ci def yëpp nag bu ñu waxee nga ne ah oustaz loolu kii loolu loolu jafe na de oustaz loolu war nga ma koo jàngal waa jàppe ko noonu rek nañ nañ ko jàppe noonu ci war nga ma koo jàngal rek ko mën mukk buñ demee ci yàlla nag li wane ne duñ amul lay mooy yeneen yi ñu amaloon yitte te jàpp ne moo am njariñ ci ñun jàngoon nañ ko suñ mbiri diine teggeen yi ñuy jëflantee nañ ko jàng ndax dana tax suñ borom bëgg ci ñun te loolu daa bokk ci la ab jullit war a am boo ñëwee ci armeel yi nga nuyoo assalaamu aleykum ahla diyaari min al muminina wal muminaati waaw loolu benn la ci am na yeneen façon te loolu mooy maa ngi leen di nuyu yéen waa armeel yi yéen ñi fi tëdd tey góor aku jigéen waaw yéen de da ngeen ñoo jiitu rek waaye ñoo ngi ñëw <laughs> ñoo ngi ñëw léegi tey ñu fekk si leen ñoom dañuy yëg ni ñëw nga ci armeel yi di waaye nga ñëw di jéggat di jaar ci kaw bàmmeel yi di senki senki euh, euh, rek di cokkasti ku yor sa téléphone bi billaahi bis dana ñëw nga tëdd fi bis dana ñëw maag yow ñu tëdd mi ngoog bu ko defee gunge am néew ci teggin yi la bokk gunge am néew it buñ ko mënoon la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy ne cell ne cell maanaam yonent bi waxut ne nañ fa jàng nangam nañ yëkkati nàngam nañ def nangam nañ ñi cell cell googu mooy ne ko ku nekk ñaanal na ko ku nekk ñaanal waaye boo ko na tey suñ jamonoy tey bu àndandoo di tudd yàlla wala ñu ànd di jàng leneen Euh, boo ko nattee ci buñ jëfur woon loolu nit ñi tàmbalee ngun ngune dugg ci lu seen yoon nekkut bu boobaa nag mën naa dugg ci buntu buntub lii far gën ndax mën naa dàqalee te ñaan moom ñépp a ko soxla rawatina ku tëdd ci tiraayam bu mujj boobu bu ñetteel bi ci tax a baax nee na yonent bi dig digal ñu euh, ku tis sooli ci ñun ñu ndokkeel ko mbokk yi maa ngi waxtaane ak mbaax ñëw ci xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko nettali bara ibnu azib radiallahu ko ci moom ne amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in wa nahaana an sab'in yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal nañu juróom-ñaar waaye tere nañu juróom-ñaar juróom-ñaar yi ñu digal boo xoolee lépp ci sa digganteeg nit ñi lay dellu ba ca jiitu mooy sa mbokk mu feebar nga seeti ko bu ñaareel bi sa mbokk mu faatu nga ànd ca rob ba bu ñetteel bi sa mbokk mu tissooli nga ndokkeel ko bu tissoolee wax alhamdulillah ci sa wet wala nga dégg ko nga ne ko yarhamukallah ba yee ca topp yëpp topp ci waxoon naa ko xëy ñu bari naan ma boo ne yarhamukallah oustaz loo koy wax ma ne ah xaw ngeen a yéex waaye waaye nañ jàng nag yi nga xam ne taar la ci lislaam ji te da koo rafetal hmm? loolu nag bu mu tax yow mi ma koy bëgga a nga bàyyi bu tax bul bu la kenn kiiloo sama classe gi la léeg ñu wax la noonu ba boo bëggee laajati dara sax tàyyi koo laaj waaye amal fullay xam rek yow amal fullay xam euh, li lay tax a yóbbu te bañ ci am benn complexe ba ca topp te mooy bu ñeenteel bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam te muy rafet yi ci wàllu euh, yiy tax baax te dox ci suñu diggante mooy di setal aji giñ aji giñ koo xam ne dafa giñ ci am mbir buñ ko mënee jàppale ba giñam nga mu bañ caa suux ñu jàppale ko ba mu bañ caa suux loolu ci teggin yi la bokk ci teggin yi la bokk waa ji jëlal na la garanté am mbir boo ñëwee rikk waaye na nga fexe ba bul ko indil ay jafe-jafe waaw na nga ko na nga ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko indil ay jafe-jafe bul tiiñal benn jullit bul tiiñal benn jullit ba ca topp nee na mooy di dimbali ku ñu tooñ allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen daa bokk ci ak mbaax di dimbali ku tooñ ku baax du seetaan waaw ku baax du seetaan du seetaan ku ñu tooñ du seetaan ku ñu tooñ seetaan baaxut seetaan baaxut ku ñu tooñ nee nañ ko dimbali tooñ baaxut kenn du seetaan insistif ci am réew kenn du ko seetaan ñun nag nit dañ koy tooñ ñu naan ko muñal ak man de xam naa ne moo la tooñ waaye mënuma koo wax dara nit ñi dañuy seetaan kuñ tooñ te bis boo fayoo àdduna tukki bis boo fayoo rek àdduna tukki mën a seetaan bay bëgg a dee seetaan gu ëpp gi sax ak sot la xeet la ci sot waaw bu yàggee ñun ñëppi tooñkat la ñu doon kuñ tooñ ak ku tooñ ñëpp dañ leen a war a dimbali waaw kuñ tooñ ñu dimbali ko ba fayal kook tooñam ku tooñ ñu dimbali ko ba xamal ko ne ko yaa pénc ma daal di mucc ndax injustice daf fay daal di jóge moo ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal ñu nag ñuy dimbali ku ñu tooñ waaye mu digal ñu itam ñuy wuy ji buñ ñu invité waaw ñuy wuy ji buñ ñu invité ci mbaax la bokk waaw ak mbaax da caa bokk di wuy ji invitation yi waaye toog ne soggu rek rëy rëy rëy rëy bay bëgg a dee doo wuy ji kenn doo wuy ji kenn yow daal tuwarkal la yaa ngi noonu rek <laughs> yaa ngi noonu rek bokk ko juróom-ñaareel nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal ñu ñuy nuyoo digal ñu ñuy nuyoo waaw nuyoo ndekete ci mbaax gi la bokk juróom-ñaara ngi nii ci xadis bi yoo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko digal te nee na buñ ko defee daal tàmbulee baax ba ca jiitu seeti ku feebar seeti ku feebar sa digganteeg nit ñi la ba léegi yi ma wax ni yépp demagul sa digganteeg sa boroom ndax sa digganteeg nit ñi daa mat a bàyyi xel waaw moo tax mbaax mooy rafetu jikko waaw jikko yu rafet mooy ak mbaax jikko yu rafet mooy ak mbaax jikko yu rafet ba ku feebar nga dem seeti ko moo xam amoon ngeenu dikk moo xam seen diggante tax xam nga di seeti say xarit rek ak ñi ngay liggéeyee ndool yomb na waaye sa mbokkum jullit moo xam ne xëy na amalu la njariñ ñi ci njariñul saayir suñu natt léeg-léeg seeti ku la amal ay intérêt wala wala wala loolu yomb na waaye dem seeti koo xamante ne yàlla xam na ne wéram gi moom amalu la ci woon njariñ looy làmb di ko daj waaye da nga koo seeti te yàlla tax ak àq yi dox diggante nit ak nit lu rafet la ak ku baax dëgg ko man gunge am néew ku baax a ko man ndokkeel kuy tissooli ku baax a ko man dimbali nit ba setal ko ci ngiñam ku baax a ko man dimbali kuñ tooñ ku baax a ko man di wuy ji woote yi ku baax ko man waaye di nuyoo ku baax ko man juróom-ñaar yi daa bokk ci yi nga xam ne day tax a baax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ci xadis bi te mooy diggal nañu juróom-ñaar bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla nañ dund ba suba te weesu ko daañu tàmbulee ci juróom-ñaar yi nga xam ne moom lañu teree ginnaaw bi mu ñëwee ci juróom-ñaar yi nga xam ne moom la ñu digal ba noppi ñu jaajëfal leen bu baax a baax delluwaat di leen ñaanal di sàkkuwaat ci yéen ñaan ñaanal soppee almisbaax yépp delluwaat di leen ñaanal bu baax a baax tey bëgg ci ni ñu toppee jotaay bi tey bëgg ci ni ñu jàppee jàppee noonu waxtaan wi jaajëfal bu baax a baax Oustaz Alioune sàll moom la ñuy bàyyee toogu bi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko ñaan li muy ñaan ci ñun yal na ko yàlla nangu li ñuy ñaan ci moom it yal na ko yàlla nangu ñu ànd ak moom déglu waxtaanu fajar yi ñun ñëpp seen mbokk si Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya li kamalika wa adada kamali assalaamu aleykum wa taala